te depuis Macky Sall ñëw ba léegi muy restreindre ces espaces de liberté petit à petit euh, di tere nit di exprimer wu gis ngeen ñoom Ousmane Diagne ak ñoom Cheikh Omar Diagne ak ñoom Karim seen opinion lañ leen reproché di leen mal diffusion de fausses nouvelles nga xam ne loolu ça ça relève de la flagrance ñu yóbbu leen instruction loolu persécution la ku mel ni Pape Alé Niang xam nañu c'est un journaliste d'investigation ñu téye ko sur la base d'un rapport estampillé secret ba noppi bëgg ko laaj ay sources am te loolu yoon mayewul nga laaj journaliste bi ay source ay source donc toutes ces raisons dafa def combat bi benn ce combat pour les libertés nga xam ni COLIDEP moo ci jiitu woon ci jamono yi léegi presque bi daf ko rejoindre parce que li atteindre suñu frais yi nga xam ne dañ leen téye pour seen opinion alors que constitution dafa ni ci article huit tu citoyen à le droit d'exprimer son opinion par la plume l'image ou la parole bépp euh, citoyen am na sañ-sañu fësal xalaatam ci xalimaam ci nataal wala ci kàddoom loolu constitution moo ko mayee kon waruñu mën a téye ci wax xalaatam parce que ñoom Cheikh Omar Diagne seen njortu bu ñaaw ci deewu Imam Ndao lañ leen jàppe jàppee euh, euh, Ousmane Diagne ak Papito Kara euh, ay émoticônes yu ñu partagé ak ay post lañ leen jàppee te presse satirique xam ngeen am am amoon na fi ba léegi am na fi Cafard Libéré c'est c'est de la satire le politicien c'était de la satire même le journal Rappé daan ngeen ko dégg c' est aussi de la satire satire Kouthia mu ngi am sa façon de présenter l' information c' est satirique euh, euh, euh, ki nekk Walfadjri Sandiogou il a aussi sa façon de présenter lactualité kon Papito Kara war nañ ko nangul son style là surtout que moom daf ko def dans un cadre beaucoup plus libre muy réseaux sociaux yi nga xam ne c' est pas c' est pas concerné par le régulateur qu'est l'ARTP kon tey jii violation liberté yooyu yëpp nag moo ñu fi indi pour ñu xeexandoo ko te maa ngi sant yàlla bi xeex bi nekkee benn parce que lu kenn mën mbooloo moo ko ko ëpp moo ko gën a mën donc loolu moo waral suñu teewaay fii donc dinañu def suñu war ñu mëtal suñu taxawaay ba ba ba ñuy respecter liberté individuelle ak collective yi nga xam ni constitution bi moo ko conféré au peuple jërëjëf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 moo ko tax a jóg